waaw euh, asalaamaaleykum sis euh, balaa may tontu ci sa question maa ngi nuyu waa Jalaaw gépp di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay euh, di leen jaale ji ci xew-xew yi fi amoon muy accident bu bu yéeme ci diggante route nationale ak croisement yeen ba ay bakken rocc loolu maa ngi leen ciy jaale di ñaan yàlla aji dem yi yàlla yërëm leen xare leen ajjana xew-xew bi mu amee fekkuma fi waaye bañ ma annoncé mbir mi dama yebal suma adjoint Ibra Diagne mu ànd ak Mansour Diouf ñu dem foofu sur les lieux la fa waroon ci taxawaay te mu ajoo ci ñun ñëpp def nañ ko moom mat muy liñ fi nekkee bi ñu leen évacué à ak autopsie yi ñu waroon def def ko luy ay ay ay ay oto ñu ñëw indi leen yéen ci seen famille rob leen ànd ak ñoom ci dëj yi ba mu jeex maa ngi jàll waa Jalaaw gépp di ñaan yàlla lii yàlla na fi géej léegi nag li nga xam ne lii mooy taxawaay yàlla dogal na def nañ ko euh, place boobu place boobu la boo xam ne bi très souvent ay accident dafay am mais bind nañu le ministre des transports terrestres benn lettre boo xam ne dañuy demande foofu ay ralentisseur ba nga xam ne bu oto jógee Dakar wala Mbour wala ci Cosma ay yéen dina wàññi vitesse am bu fa sofaan nare am tam dina wàññeeku parce que ndoom li ko coon se ko waxee oto moom daw ndànk dal ndànk donc loolu mu ngi ci def ay jéego di masawu famille yépp di jéeg jaale waaye yéen ci sama tur ak tur conseil municipal comme ni nga wax sa question nag li nga xam ne li mooy conseil municipal bii nga xam ne moom la def tey dafa nekk demande population bi ndax bu ñu toogee ba léegi bii mooy ñaareel yoon ñuy def conseil municipal bii nag li ko tax a jóg ba ñu faloo ba léegi dañuy def ay jéego yu baree baree bari def ay mission yu baree bari mission yooyu nag ñu ne woon dañ koy partager ak conseil bi loolu mooy woon nekk premier point du point information ak questions diverses ci loolu lépp lu ñu fi def ci ay convention ak ay voyage ak ay séminaire ak ay mbir yoo xam ne yi dafa ajoo euh, commune bi dox nañu ko te rendre nañu ci compte euh, kii conseil bi yépp te itam rafetlu nañ ko trop beneen question bi muy deuxième question dafa ajo woon ci virement de crédit ndax bi ñu ñëwee dañu fi fekk budget budget boobu dañuy gis ne am na ci ay mbir yoo xam ne ñun li nekk ci ñu projet ñu war koo liggéey lu bare dañ koo pré dañ ko euh, programmé wu ci biir loolu moo tax ñu woo conseil bi di def ay réaménagement pour lépp loo xam ne ni nisaloon nañ ko war koo liggéey te nekku ci ñu wàññi fa ñu mën a wàññi yóbbu ko ci la ñu bëgg a liggéey te loolu yëpp def nañ ko ci ni mu ware beneen bi mooy taxe yi nga xam ne yi moo fi nekk ci wàllu euh, batiment wàllu construction ñu fixé ay tax ndax taxe yi ñu fa fekkoon dafa nekk taxe yoo xam ne daanaka nit ñi mënuñu koon appliquer bi ñu defee enquête dañu seetlu ne tax yooyu li ko waral mënul dox dafa xaw a seer si nit ñi comme dëkk bi amuñu ay moyen il a fallu que lépp ñu ñu revoir ko à la baisse wàññi ko fii waroon nekk ay cinquante mille ñu wàññi ko def ko vingt cinq mille fu ñu daan dem cinquante mille ñu def ko cinquante mille fu ñu doon def deux cent deux cent cinquante mille ñu def ko soixante quinze mille loolu nit ñi rafetlu nañ ko te voté nañ ko à l'unanimité beneen kii bi dafa nekkoon ay délégation du pouvoir yoo xam ne dañ koy may maire pour muy mën a signer ay convention mën a signer ay protocole yoo xam ne séqoo nañ ko ak partenaires yi ci wàllu financement ak wàllu àndal liggéey bi nga xam ne bi moo war a nekk ci nit ñi ak ONG bi benen eh, kii bi mooy nekk na ay délégation de pouvoir yoo xam ne dañ koy may maire pour que mu am ci les coups de France pour mën cee addu mën see jëf mën koo signer beneen bi adoption la boo xam ne benn convention des maires sur le climat l'énergie en Afrique subsaharienne loolu eh, ONG 3D moo ko moo koy piloté eh, ñaari commune la ñu wax ne ci Sénégal ñoo ci bokk ñu bëggoon àndante bi ñu ànd ak ñoom te mu rafet ñu bëggoon waaye yéen dugg ci te si def nañ conseil bi tey euh, adopté nañu ko à l'unanimité bu soobee yàlla dinañ ko signe te njariñ yi si war a ñëw banque mondiale di ko financé mu war a ñëw si commune yenn muy protection littorale bi parce que ku xam na ne suñu géej gi mu ngi jël kër yi di jël armeel yi di jël lépp donc loolu projet yi nga xam ne yi suñu doole yeggu fa te ñu war ko mën a am ndimbal feneen moo waral ñu signé convention boobu pour ndimbal yooyu yëpp ñu mën cee jot loolu daal moo xam ne mi moo waree conseil bi te yàlla dogal na ñu commencé ko si bisimilah rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulilah rabbi alamin def nañu ko ci ci tey ci respe def nañu ko ci dal te lépp li nga xam ne mooy moom lañu fi indi war koo war koo voté conseil bi voté nañ ko à l'unanimité abstention amul désistement amul ñëpp rafetlu nañ ko te d'accord na ji ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey te moo waraloon réaménagement yi yëpp ñu war koo def jërë ngeen def bon population bi euh, appel bi mooy ba daan appel rek appel boobu moom laay def pour toujours te am na ñu nekkoon ci conseil bi tey wax nañ ko ku mel ni Moussa bi woote nañu appel boo xam ne bi dañu woo askan wi yëpp muy ci conseil bi ak waa village bi ak yëpp woo nañu leen pour ñu ànd ñu lëkkaloo boole suñuy doole ñu ànd ñu liggéey Jalaw parce que Jalaaw dafa am retardement bu rëy rëy rëy ci wàll yépp muy éducation muy santé muy énergie muy wàllu ndox mi lépp li nga xam ne ni daal lu ab dëkk waral am la yéen daf ko sooxee te li koy def du bàyyi maas du keneen du keneen mbooloo mi yépp Jalaaw gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo war a lëkkaloo boole suñu doolee di xàccandoo di dóorandoo te ci conseil bi ñëpp d'accord nañu ne la wooloo moo war a am doon nag ni ngi ci taxaw bu soobee Yàlla pour mettre en application. Merci.